di leen nuyu kenn ku ne ci turam ak santam su may ubbee xas waxtaan wi rek mooy jotaay Serigne Touba doo xam fooy tàmbalee doo xam fooy jeexale kàddu yi ma fi dégg ba ma toogee ba tey bu ci ëpp doole sa moroom nga ne bii la ba doo xam fooy tàmbalee ma laal tuuti ceddu murit fa mu tàpp fa mu bàyyee sëriñ bi dafa am ku mu doon waxal kooku di ko xool ba mu yàgg ne ko mbàkke leen rek laa xam ne moom xamoo ko sëriñ mu ne ko lu mu doon mu ne ko xamoo àddina sëriñ Tuubaa ne ko tuub ko xam koo tax ma wàcc ko xam koo tax ma wàcc ko yow mi yaa xamagul àddina dina la lor dina la wor waaye xam àddina tax ma wàcc ko kon li cedd doon wax lépp dugg na ci kàddoom googu sëñ màgget mii sëñ Maam Moor dafa am lu Sëriñ Tuubaa di yare kër goo dugg fekk ko fa dañu am ngor ak teraanga ak xam àddina ba nga xam ne booy ànd ak seen baay ba mu yàgg bu ñu gisatul seen baay yow baay nga fay doon looloo dal màgget te kim liggéeyal fekk naa ñetti jotaay sëñ Abdou Khadir naawel gii mu ñuy wax naawel gii ñu ma ñëpp di bàkkee moo fa jëkk foofu bari fan yi rek yéen a gis benn audio buy daw wala benn xaw ma loolu ko tuddee ci réseaux sociaux yi sëñ maam Mor xam si diine di wax ci sëñ Abdou Khadir ak maam Asta Walo Ndawel fan yi rek mi ngi siiw sëñ Gele mi daan jiite jumaa Tuubaa weeru koor daf maa wóolu ba ma ñëw këram nga ca Gédé ginnaaw ko sëñ Abdou Khadir mu ne ma Oumar Ndiour lenn rek laa la bëgg a laaj yow noo def ba ñëpp di la askane la maam Asta Walo te bokkook moom benn ñaareel ba nooy def bay baagante naawel ma ne ko bàggante naawel dafa am jafe mu ne mbubb rëy rëy rëy mu ne damaa toog sama kër sëñ Abdou Khadre yu ne fi ndaw dama gede ma wuyu mu ne ma nanga nga waaj damay def ni siyaara gi ma daan def jaar ci Maama Saalo dem Poroxaan bëgg ñu ànd ci maayoo yoon wi nee na mosuma bëgg noonu sama àddina sëñ Abdou Khadre yónnee ma ndaamaar oto ak ku may dawalal nee na ñu dem ba mbir kilaan oto bi ma sëñ Abdou Khadir jox mel ni lu këpp ci buntu mbir mbir kilaan sëñ Abdou Khadir moom wéy na nee na ñu fekk sëñ bi ca barab bu ma a soal mu tedd ma ne ko sëñ Gédé de oto bi nga ko jox dafa am sikk mu ne mbaa dugg na naawel ñu ne ko déedéet ma nga yem mbir kilaan mu ne wutal leen ko beneen mu topp ma jëm poroxaan ndax tàggu naa ko ba pare soxla maama soxla leexle te kii xam naa mbiram de na na ko jàpp beneen yoon waaye yoon mu nekk si sëñ Gédé nee na keroog gis ma maam Asta Waalo siyaare ma ko di jooy ma dégg ne waxtu ne yaa nga naawel ma lay laaj dafa am léemaay wala dara ma ne ko naa ci yàlla musuma léew dugg naawel. moom ku mu bëgg a nuyu rek lay nuyu maam Asta Waalo ku mu bëgg gis rek lay gis muy benn ñaareel ba soxna Amin Tamar man moo ma yar mi sëñ Tuubaa yoroon dafa fonk sëñ Abdou Khadir. dama kaay ma wax la fekk ma koy laaj ñuy waxtaan ma waxtaan ko wax ñu neex mu ne ma naa la wax ñaar maam dama bëgg rek nga wax ma ku nuru sëñ ab sëñ ci njaboot sëñ ab sëñ ci sëñ njabootu sëñ Tuubaa gi ma jàppal tuutiwaayu sëñ Abdou ba ak ñuulaayu sëñ Mbàkke Madina ba ñaar ñooy niroo nuroo nañ ko ci lépp sëñ Abdou Xaadir Sëriñ dafa jaar ñi kër ku ñu wax sëñ Thierno Yoro Ndiaye waaye jaar gi mu fa jaar bokkul ak liñ koy nettalee Mamor Sëriñ Tuubaa jàngul fen ñu jàngi foofu kër Thierno Yoro Ndiaye am na ci bu kilifa dëkk bi yu kenn du tudd ca lañ bokk Sëriñ Tuubaa jàngewu fa li ma la wax lépp Sëriñ Tuubaa di ko leeral kër Thierno Yoro Ndiaye ma nga ca Bargny boroom nga an fa la jànge sëñ mu jaar na fa ak njabootu Serigne Touba gi waaye moom demu fa benn yoon la dem Bargny sëñ Abdou Khadir wax may dégg de maag sëñ Gédé toog weeru koor weeru feeñ na weeru feeñ na ñu toog sëñ sëñ Gédé ne ko Umar Ndiour mii de moo liggéey barab ba Serigne Touba jaar ca Bargny suñu mu ne aha ma ne ko waaw mu ne barab boobu lu ko waral ndax waa Sëñ Tuubaa loolu la def li ñu lay laaj ñoo lu gën a xam maam moor li ngeen di wax ñii ñoo leen ko gën a xam mu ne ma barab ba nu mu demee ma ne ko bu ma koy liggéey de waa ñi nee nañu sëriñ bi dafa loon tàggu si maam moor jaara mu ne ana nga gede sëñ gede ko maa ngi mbàkke mu ne ko xame xaw ma ko noonu mu ne xamewu ko noonu de dégg nga teggin ya sëñ gede ne ko mbàkke xamee rek ka wér mu ne kon ma nettali ni ma ko xamee jàngaleen loolu waaye waxu tey waaye tegginu sëñ Tuubaa yooyu man de xamewuma ma ko noonu man maay wax de mu ne ma xamewu ma ko noonu de ana nga gëne xamewu ko noonu de sëñ Gede ne ni ko xamee rek ko wér mu ne kon ma netti la ma ci xam la ko yóbbu bari ñi sëñ Abdou Xaale wax de ñun ñett rek la ci nekk bi ak ku wax Sëriñ Tuubaa jigal dëkk bari ñi mu ne ni ma ko xamee li ko yóbbu bari ñi du loolu du loolu boroom gaawaan dafa toog fii yëkk ne boro ay naar sàcc nañ borom gaawal Cheikh Abdou Khadre wax may dégg de mu ñëw ba bari ñi te bëgg naa dem mu laaj ko fa ñu ne ko gis ñu Sëñ Abdou Khadre ndekete Sëñ Abdou Khadre xel ndax sëñ sëñ sëñ sëñ gaawal xel mi dem na ci sëriñ bi bëggutul toog fii mu topp benn yoon ba jaar ci benn pom boo demee ma woon la pom ba ca bal ñi pom ndox la jaar ay naat sàcc ko te lu xaar may dégg de sëriñ bi fi mu toog xam ne naari rëcc nañu bëgg ko yóbbu la dem ca xelu sëñ Abdou def ci sëñ borom gaawal fekk benn buur jàpp na ko bu tudd dinaa ko fàttaliku bala ñoo dem jaali barama xaali xala xaali jaarama baraama yu mel noonu daal kookoo ko xool kookoo ko xool ne naa li foo leen jële kii ñu ne koo kii day dañ koo jënd sunu jaama mu ne déedéet deret ji waxul loolu déedéet deret ji waxul loolu kii lay laa kii deret ba mu bokk gisuma deret bu ko ëpp doole buur bee wax de déedéet bàyyi leen ko fii kii mënul ànd ak yenn kii moom leen ko foofu sëñ sëñ Abdou Khadir wax de foofu la sëriñ bi def ci xelam ne ko génnal mu génn mu won ko yoon moom kenn mu topp yoon ba fekk fi sëñ Tuubaa ne sëñ Abdou Khadir may dégg jërëjëf nekk fa naan ko maay taawu sëriñ beeg maa dafa egg suuf moom sëñ Moussa jox ko wax ko ay bi sëñ Fallou Seye ne ñëpp ngi toog kooku de salaamaaleykum mbokk yi maa leen di nuyu kenn ku ne ci turam ak santam ñun de ndekete ñun murit yi dañ doon wër yàlla ndekete mu ngi suñu wewu tànk nee na maa ngi koy dégg de ñun de ñun murit sant yàlla dañ doon wër yàlla ndekete mu ngi suñu wewu tànk man de fii laa toog di déglu yeewee gi maa ngi ñëpp a yem am ku ma ne pëkk pëkk ne ma Mor Diagne ma wuy mu ne ma kaay wuy sëñ bi ci biir ma dem fekk fa ku tedd ki moom kenn ci biir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 ma ne yàlla day bu loon nit ma ne daf maa déggul sëñ fàllu Sey nee na sëñ Mor Diagne nett li ñëpp di dégg yow yàlla de bu loon nit ma ne daf maa déggul ñetteelu yoon bi mooy tey jii ci guddi laylatul mawlud nabi bi jeex tey laa ko laajaat am na lu mu gën a bëgg te kenn du ko defal mu digal ma ko ma sax ma digal ko murit yi mu wax ma ko ma digal murit ñu sax ci du ko defal ndax sant koom yàlla Mor jaañ tey la ma yàlla wax waa tontu bu gàtt ne ma xanaa ñu sax ci di la waxtaane kon loolu lay jotaay yi sëñ bi loolu rek laa bëggoon ko. xaaral xaaral sëñ Maxtaar bala ngaa kii bàyyi màgget mi dafa ma wax lu am nee na ma juróom-ñetti fukki atam. bu matuti jege na ah, te boobu tey sëñ Touba nee na rek lay wax ñëwatul sax ci baas lii nu am rëy lool ndax ku ku sëriñ bi yara ko yar ma bëgg ñun ñu fi teew teew ñépp maa ngi ñaan ci darajey sëñ Touba weer wi weeru jam ñaari picc la sànnu jam ñaari picc muy poroxaan ginnaaw suba kas rajab ñu ne ci biir weer wi ma bëgg képp koo xam ne ñëw nga jox ko addee sëñ Tuubaa ni weer wi barke la yàlla na nga ni barke la barke sëriñ Tuubaa waaw buur ba ma nga tudd sëñ Màkk sëñ Màkk Baraama Xaali waaw mu ne mu ne doom jaako na jox ko baayam xaali mi ngi ci marché ab sëñ gaawan bi waaw kay jërëjëf sëñ Maxtaar couleur ngeen jotaay bi lii moom bu subaa rek ma jokkook sëñ bi wax ko ko ku ko jox daal maa ngi ñaan ci barke sëñ Bamba aw ñàkk moom yàlla na la sori ba faw te jamono ji ñàkk baaxu ci waaw waaw sëñ Maxtaar si la jox na ko addiya na ko ñëpp jox ñoom sëñ Malick ak sama gaay yi gaay yi sëñ Masamba daa créé ay Masamba Masamba amin amin amin na ñëpp ñëw jox ko te wax amin barke sëñ Touba Baye Omar Ndiour jërëjëf sëriñ bi dañu sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéey